Euh, maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu bépp sénégalais bi nga xamante ne que mi ngi xàmmee ci caméra rek euh, man Mohamed maa ngi leen di euh, maa ngi leen nuyu di la fay. <laughs> man nag maa ngi tudd Mohamed moo gis bi nag maanaam turu turu marketing la nii rek mais sama tur Mohamed Diallo la. moo gis lu ko lal bëri na maanaam surnom la rek yeah surnom la. moo moo jàng naa alquran waaw. Dakar laa juddoo euh, je suis euh, bien vrai que loolu noonu information bu faux la euh, maanaam musuma wax ni que damay def maire ou bien quoi que ce soit mais lépp loo xamante ni que maanaam ci politique la wala ñu bëgg ko def rek. Euh, suñ si jotee ñun nañ ko communiquer. maa ngi ci politique ba ba pare. bépp ambition pour jàppale suñu réew rek ñun pare nañ pour def ko. Euh, je pense que loolu dafay nekk euh, lu prématuré pour que ñu wax ci parce que je pense que ñu ngi deux mille vingt deux te tey ji deux mille vingt quatre jotagul. donc incha allah su suñ su bëggee bokk rek wala suñ su naree bokk. amuñu benn problème pour communiquer ko Sénégalais yi. bon je pense que même bu dul man bépp Sénégalais boo xamante ne mënul bokk ci élection dafay xool candidat bu ko neex mu jàppale ko. Euh, bon balaa ñuy wax partenaire xam nga tey maanaam chaque année dañu am euh, euh, benn programme bu bu bu bu déterminé bu ñuy def mu nekk ci liggéeyum diine nekk ci ci sport ci éducation ak culture. donc euh, euh, tey jii nii euh, sport bi ngay wax muy MMA bi ak làmb ji maanaam def nañ ko fii Amérique amuñu benn partenaire ak wax dëgg yàlla you know ñu ngi koy def suñu coobare bopp et puis et relation bu sincère relation relation bu bu bu bu amicable tey jii nii comme ni ma la ko waxee dañu am. benn programme bi nga xamante ne que chaque année moom lañu def lii ji ci diine lii ci éducation lii ci culture ak lii ci sport you know donc tey jii ni maanaam euh, at bu ne loolu la ñuy def. musuma tabax jàkk man kase mais euh, jàpp naa ci ay liggéeyum taxaw tabaxu jàpp loolu noonu maanaam jàpp naa ci. bon euh, Boucher euh, je pense que tey euh, ñu bëri dañuy réeroo tuuti ci le fait que mu nekk ci snapam ak communication mais je pense que tey maanaam mbër bu mën mbëre la et puis d'ailleurs sax am na tëggal nañ ko combat avec Mo Gates Events mook Alaaji Mbay combat le 15 mai incha allah arène nationale ak yeneen i combat tamit pour journée bi je pense que tey ñu ngi woo Sénégalais yëpp ci jour boobu noonu le 15 mai Euh, ci cadrum làmb moom li mu mën euh, di woo sénégalais yi euh, le 15 mai incha allah pour ñu seetaan combat bi. bon xam nga tey je pense que loolu noonu du débat you know je pense pas que mu nekk débat dañu nekk ci dëkk bi nga xamante ne ay musulman lañu te dañuy topp diine ak aada suñu diine lu mu wax non. comme par exemple euh, waroo naan alcool waroo màndi senon non c'est non très jarul ñuy débat mi ngi mel ni comme tey ñu ne par exemple euh, euh, <laughs> diine dafa wax ni que naan sàngara baaxul ñu ñëw ne non mais est-ce que sàngara ñu ci yokk tuuti limon wala est-ce que maanaam ñu ci yokk tuuti bisaab <laughs> wala ñu def ci jinjeer <laughs> naan baaxul naan baaxul rek. diine nee góor góor jigéen baaxul góor jigéen baaxul nag c'est très simple amul débat. Euh, lépp loo xamante ne encore laaj si mbirum folklore la si si loo xamante ne maanaam jëriñul dara sénégalais yi euh, je préfère pas no wax ci you know bëgg tey suñuy wax loo xam ne day jëriñ sénégalais surtout ça loo xamante ne dafay jëriñ sénégalais yi jeunes yi nañ ci gis seen bopp ci emploi ci agriculture ci technologie loo xamante ne maanaam sax day jëriñ sénégalais yi pas seulement ay folklore ak ay wax parce que parce que wax yu bëri. fayul facture yi. amul benn problème ak njole Ndiolé you ku baax la woy na ma woy bu neex euh, you know euh, ñëw na Amérique franchement euh, topp ma may def sama tournée you know franchement ma dara may wax si moom lu dul lu baax wax dëgg yàlla. Khadija Diallo moom rek laa nopp moom rek laa bëgg mooy sama jabar. di ko gërëm di ko sant démb tey la maanaam démb moom la. tey moom la nekk ñu ci mbirum nàmp soxna si euh, xaj boo yar teg ko sa wet loolu compagnon la euh, mais ci gàttal euh, sénégalais yi dañuy réeroo benn mbir invité ak entourage bokkul tey jii nii su may dem ci mbirum làmb lu muy laaj mooy entourage wu làmb tey su may dem ci maanaam di dox ci mbirum diine lu muy laaj mooy mbirum diine on est d'accord tey maanaam su may dox ci mbirum je sais mbirum business entourage bu muy laaj mooy mbirum business mais dafa fekk ni que liggéey bu ñuy def li ci gën a ndaw moo ëpp coow muy mbirum show business liggéey bu ñuy def liggéey bi moo gis global di def mbirum entertainment moo ci ëpp maanaam c'est-à-dire moo ci gën a ndaw daanaka cinq pour cent la ci waaye moo ci ëpp coow ma jox la exemple tey mën nañu jënd benn bâtiment wala investir ci loolu amul coow mën nañu jënd euh, ay action ci ay équipe de foot loolu amul coow la bourse américaine mën nañ ci gañe benn trente millions trente cinq millions loolu amul coow waaye foo tëgg concert dafa ay tamak coow li na kur <laughs> on est d'accord donc liggéey bu ñuy def ci mbirum entertainment cinq pour cent la moo sëpp coow c'est dommage mais moo sëpp coow. et féliciter leen en tant que sénégalais bon bien vrai que je suis pas du tout mais euh, franchement nous sommes nous kontaan nañu bu baax si lu ñu indil coupe bi di leen encourager te leen féliciter. bon wax dëgg yàlla euh, li ma am pour wax ci loolu c'est très simple Viviane avant tout jigéen la avant tout mère de famille la on est d'accord. te budul dara tey bokk na ci emblème musique sénégalaise donc tey amuñu dara luñ koy wax lu dul maanaam gàcce ngaalama ci loolu euh, Mohamed Diallo amul problème amul benn problème ak Viviane que ça soit clair mais nag ci liggéey mal malentendu mënta ñàkk donc tey entreprise moo gis global mën na am problème ak avec l'artiste mais c'est pas personnel on est d'accord mais amuñu benn problème jàppuma dara wala nekkuma di xalaat dara bu dul dara encore comme ni ma leen ko waxee jigéen la maire de famille la te tey euh, bokk na ci emblème mu musique sénégalaise donc amuñu benn problème lu ñuy def rek mooy di ko encourager ci carrière am personnellement man Mohamed. Euh, li ma koy ñaanal mooy mu yokk ci carrière am te li muy way neex na